seen loxo te muy liggéey boo xam ne ñëpp lañ koy defal askan wépp lañ koy defal waaye ngeen di ci liggéeyal Serigne Touba itam di ci liggéeyal yàlla mu nekk farata joo xam ne farat la ju war ñëpp waaye ñenn rek ñoo koy taxaw mu wàcc ñi ci des kon mel na ne amul kenn kuy dox ci biir réew mi ku dul yéen nga koy defal lu mu waroon a def loolu nag kon dañ leen ciy jaajëfal bu baax di leen ci sant bu baax di leen gërëm bu baax jamono nag tollu ab tolluwaay tolluwaay bi mu toll muy ñu ngi fiy dégg tawat joo xam ne mi ngi ci réew mi doon tawat joo xam ne day wàlle te itam barab bii di barab boo xam ne ku nekk daf fii ñëw te ñi fiy ñëw ñëpp mënuñoo xam kii ci lii la jóge wala kaar ci lee la jóge ku feeñ la rek lañ mën a xam ne kii feeñ la mu ñëw fi waaye ki feeñ liwut mëne si koo xam kon nag euh, war nañu bàyyi xel bu baax a a baax a baax a baax ci suñu bopp ngir ñi fiy ñëw buñ ñëwee luñ mën a indi itam bañ ko fee bàyyi loola nag la ci jiitu mooy tegtal yi nga xam ne kër docteur ñu ngi koy joxe docteur yi nag tegtal tegtal yi nga xam ne moom la ñuy joxe ngir mën cee mucc la ca jiitu mooy set set gi itam dafa am nuñ koy defee dañoo wax ne dañuy raxasoo saabu saabu itam wax nañ saabu ndox moo ci gën ndax bu dee saabu bu bu tegee nii kii mujj raxasu mën na caa bàyyi dara waaye bu dee saabum ndox ñu sotti ko ci eh, ci loxo yi raxasu lu man ñaari minute ba mu set bala ngaa def dara ak boo defee dara ba noppi boo ko defee ba noppi fekk amoon nga sel yi nga xam ne moom ngeen doon def léegi muy bii ngi sotti ko ci loxo bi def nii ba mu daj def nii ba mu dugg ci diggante baaraam yi ak yëpp ba mu daj nga door a dem defi la ngay def boo dee lekk boo dee naan boo dee dem dee dem togg itam nga dem togg wàññendi ko itam jokkalante gi ci wàll loxo muy nuyoo yi ak yu ni demee su sel bii jeexee nga xam ne amatu ko da ngeen di wut eau de sewel def ko ci euh, lu mel ne satala wala dara te luy ubbi moo gën nag luy ubbee yoo xam ne dañ koy paccal soo raxasoo ci saabu bi ba noppi doo ko booleeg saabu bi boo raxasoo ci saabu bi ba set toqal eau de sewel bi ci sa loxo def ko ni nga defee sel bii léegi dem su ko defee yàlla ma na laa musal ci li nga xam ne mooy jóge ci loxo yi euh, wàllu masque yi nga xam ne moom ngeen moom lañ leen jox nii itam ngeen fonk ko rawatina su ngeen di jëflante ak ñi nga xam ne ñoo fiy ñëw bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax bu ñuy tolloo ci war a jël kenn di ko génne wala ñu toll ci di ko war a laabal wala ñu toll ci di ko war a sang itam bu ñuy fàtte gants yi ñuy sol ak siile bi nga xam ne itam mooy siile bi nga yi nga xam ne am ngeen ko ci biir te di ko teg nii si euh, mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy boyot boyot bi xamoon ni koy tuddee tablier li nga xam ne moom ngeen di sol te takk ko ba mu nga xam ne dara du mën a jóge ci ñee ñëw ci mm-hmm. muy góor muy jigéen mm-hmm. Euh, koo xam ne ni dem nga ba nga xam ne sa masque itam yàgg na dañ koy dañ koy yeesalaat waaw dafa am dafa masque itam du doon doonut loo xam ne benn masque bi da nga yor mu continuer waaye même boo amul masque sax wutal kaala gu baax nga di ko nga di ko takk kaala kaala gu baax nga di ko takk te kaala gi itam boo ko fekkee da nga koy yendoo wala ñu mel noonu bala nga ñëwaat nañ ko fóot ba mu set ak saabu ak eau de Javel loolu surtout suñu mbokki jigéen ñi seen col yi itam nañ koy bàyyi xel di ko fóot giñ xëy see tey nañ fexe ba loonte ñaari ñaari col la ñu am yoo xam ne ni giñ xëy see tey bu subaa dañ koy fóot moom weer ko ci naaj mu wow ñu indiwaat geneen yi eh, moytu lu bare bare bare bare ñi fiy ñëw itam ngeen bàyyi leen xel bu baax a baax a baax a baax wàññi jokkalante bi ci wàllu loxo wàññi itam jàkkaarloo gi di wax wax yu bari ndax li li tax li tax tawat ji soof mooy dañoo wax ne mën naa nekk ci nit lu yàgg te du xam ne mi ngi ci moom te bu xasee dugg ci nit rek mën naa tàmbalee wallaate fii nag moom li ma ko li ma koy faral di waxee ci ci ci wax laaj yu bare yoo xam ne ñëw nañ ci jumaa ji laaj ko ñii dañuy ñii dañuy ñu mën moom mm-hmm. ñii moom ñun ñii di amee liggéey bii dañuy ñoo xam ne adduna mënu leen a ñàkk adduna mënu leen a ñàkk ñuy am kon nag dañ leen a war a protéger lu jiitu nag wax nañ dox dox nañ ci nag li ñu war a dox ci kilifa yi boobaak léegi mm-hmm. wax nañ ceeg ñoom itam li ñu war a wax ak ñoom mm-hmm. waaye ñëwaguñu ndax xëy na ñoom itam jamono jàtt na leen ak yëf yi waaye lu mën a xew ñëw nañ ñëwaguñ mm-hmm. ñun nañ jël suñuy matuwaay waajal suñu bopp ba dara bañ ñoo gaar loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne moom lañ bëggoon a jot li jërëgeen jëf